assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barkatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe e jokkuɓe heɗade e darde ayawo safina tv tawne wonde en yaade e safina fm 98 point 2 e toon to dakar alhamdulillah rabbil alamin e gatti kadi joni ko ɓoyani ko eɓeɗe musidɓe tedduɗe honoɓe jiiɗen ɗe alhamdulillah ɓe gummi ko toon to sénégal e nokku men biyata tamba kunda e eɗen gandi oɗo gorko joɗiɗo sen jiimo ko samba kulibalo wiyete ko jaaɗiɗo ceer yaro guila dawa dawi tan kamɓe gondi toon to tamba hayso nde min garande ko ɗo galle makko men ƴaagi kanko woni jaarigui ceer yaro tamba kunda joni noon maire o ari alhamdulillah rabbil alami ummima sénégal ari ga e mali tawtaneɗe jiyara chéri cheikh mol futrala tal ɗo e tata chéri cheikh mo futrala tal ala ɗum no en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina o ari no taani ko en gardatno gam wallude diine kanko no ari ettene gueɗal makko e fodde makko e nder oɗo tata e tata chéri cheikh mo futrala tal anuy en ko no mbiɗen ni ko asrou faya enen gonde adjoint makko ne ma en dokkuma konngol e o waɗa présenté sen gayni garten makko liñ wax léegi mooy monsieur le maire ñu ngi sant yàlla biñu yalla yàlla boole ñu fekkee lii li nga xam ne mu commencé tata bi ko defee ak léegi si di señ señ sëñ li ñu wax ak 1855 ba legui kii tata baa ngi taxaw fii alhamdulilah rabbil am na lu commencé màbbeeku tuuti waaye am nañ xarañ ci ñoo xam ne si ndimbal yàlla suñu borom ak ndimbal ñi xam ne ñoo nekk si fii si diwaan jomb ko ñoom ñëpp ñoo jàppante tegante ay loxo jël jëlaat liggéey bi boo xoolee suufale ñu koy ñu koy def ay xeer di nga di comme grillage boo xam ne dox bu ñëwee du ko mun a lekk parce que demoon ba côté waaye dafa dem dex bi di ko lekk ndox bi di ko lekk alhamdulilah rabbil alamin léegi jëlaat nañ ci loxo yi léegi yàlla ànd na suñu beer boo xam ne bi jógee Tambacounda alhamdulilah rabbil alamin mu ngi ànd ak adjoint léegi dañu jox adjoint mu présenté day présenté si wàllu wolof bu paree mu présente si day présente wàllu pulaar ñu xam ne ñëpp mu defee mu ci présente si wàllu wax ñu jox monsieur a maire même bu fekkee benn kàddu wala ñaari kàddu sax comme ko di xam taalibe Tijaan la te ñu ngi fii si asuru loo xam ne Tijaan bépp taalibe Tijaan boo gis asuru juma bu jotee da ngay xelam lépp day nekk si def asuru juma moo tax du ñu gudd dañ koy jox euh, adjoint maire mu présenté boppam présenté ñëpp ñu mu àndal mu présenté monsieur le maire ci boppam wax wax li mu war a wax bu bëri jox ko mu jël kaddu bekkee fekkee ñaari kaddu wala benn kaddu incha allah si wolof ɗum noon ceerno mi ndokkuma konngol mbaɗa présidente délégation mo garɗo noo eno garɗo ni ndokken mo kanko hayso konngol ɗiɗi o haala hen hay soko jolfo incha allah bisimillah eh, assalamu aleykum wa rahmatullah banndiraaɓe juulɓe mi salmini mono fof inde mum e yettere mum mimi ndi wiye alaaji yaya dia quatriéme adjo on maire tamba commune de tamba kounda mbiɗe arde ɗon e mouchel e maire pape banne dieyi kanko woni maire mawɗo o mbiɗe arde conseil municipal wiye samba oumar koulibaly e biteɗo bekay keyta e biteɗo issa ndaw e sefo ke kanouté ami garde kadi e, e rewɓe rewɓe te ko mariam sy goto ko aya fatou bale yara ɓe gasi ɓen foof mi gari ƴeftude maire min noon to min min komi komi ɓi jommu ko naajo par ce que jinnaɓeɓe ko ɗon gummi min noon mi jibina mi jibina ko tamba mi mawni ko tamba alhamdulillahi rabbil alamin min guetti allah e nelaɗo ɗum no fewi ha tawtirede oɗo ñalowma kan o wimo gar min ƴeftamo sababu o noon ko sababu ko sababu ko alhaji mamadou oumar sall ko sehliko ko neɗɗo moko ko jinnaɗo moko o wiɓay on no ɗon ara e ziar ko tiiɗi tiiɗi foof kanko ma o ar o tawtore hen o adde e balluɗe makko ɗum tagi o arde délégation timmuɗo machallah miɗen jettalono no feewi te kadi amin belti kadi e télé safinatu min kala nde mi yeehi dakar min waɗaɓe suivre no feewi vraiment allah jarama o jarama joni noon mi hokkama kongol kanko monsieur le maire o waɗa ko weddi hen inchallah monsieur jërëjëf ginnaaw bu ñu santee yàlla sant yonent bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant ak gërëm kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk comme nuko yaaya waxe rek lo gis rek dafa am luko waral tay dama nek ak Tamba sama mak sama xarit di momadou Omar Sall ma daan deg ku ñakar yi ku ñakar yi ma ñew nak ne nak bi won dina doon sa gan dina doon sa gan bobu dafa am tamit lu ko waral parce que bi may wut mairie Tamba daf si taxaw su zaayir ak baati kooku il faut que tey mairie Tamba delloo ko njukkal moo tax ma ñëw ak juróom-ñetti conseiller ñëw aussi su sama tur su turu au conseil des collectivités territoriales tey mun naa ne tey jii mun naa fi représenter tey jii. senegaal dama fi ñëw tànku xarit di sàkku ci tamit ñaan sama fi ñëwee bëgg naa tey jii sàkku ñaan Sénégal am jàmm ñaar yenn bu ma yàlla dënk mu oyof mbooloo nekk benn parce que fii kat daraa ngi fi fii daraa ngi fi dem naa fépp gis naa lépp dem naa Makka dem naa Médine maa ngi door a ñëw na ku ñakkaar yi ku ñu ne tey jii Cheikh Oumar fii la jaar fii la nekkoon doon jiyaat di xex ak ñan ñi nga xamé né tay ji ñoko bëggon not not l'islam bërepp bi kat jarna ñew ñëw seet si am li nga xamé né lool lay wax di ñaan yalla nak lepp luñ fi wut ci yalla nako yalla nangu jere ngeen jëf merci. jëf monsieur le maire content nañ féké même euh, benn kàddu nga xon sax alhamdullilah rabbil alamin wax nga li nga xam ne lan sabab dina le Sénégal moy suñu wajur. Euh, moo xam ne waajur ñu bëri si waajur ku ci kaar mooy Mamadou Oumar Sall ñëpp ñi koy sant boo gisee li nga fi nga toog saa mooy mbaar mi ngay gis moom moo ko liggéey ah sëriñ dañ koy ñaan dafa nekkoon ay mbaar yu ndaw di deppeeku ndànk ndank ndànk rek léegi sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Bachir Moutaga daa Cheikh Mor Fouti mu rek moom Oumar ay ay kuñ kaar na way defaral mbaar mi mu defar ko du mel ni am na ay néeg fii yoo xam na sëriñ bi ñëwee fa dal am na ay kilim am na ay lépp am na ay wanag yëpp képp ku ñëw tey comme résidence mën na dal fii si si tata bi moom moo ko liggéey saxaar la waaye boo boo demee wax nga li mu liggéey fii gis nga ko kontaan waaye ñëpp kontaan nañ monsieur le maire ñu bisimilah. xam nga danga ma wax rek lii mais tey wëral na ma fii yëpp gis naa taxawaay bi mu am tey man dama ko tuddee. xam je man dama koy wax président mais c'est une fierté pour les deux pays c'est une fierté pour les deux pays sama ñëwee Mali lu melni Khalifa ñoro tagg ko wax ko ma dégg mu présenté mako le maire de Kougnakari wax lu mel nonu ñun lu mel nonu lu raw lolu lañuy wax Sénégal donc Mamadou Omar Sall ministre Conseil du président Macky Sall c'est une fierté pour les deux pays waaw parce que tey travaux yu mu entamé fii gis naa lu mu commencé def man ne dama ne sax nekkatul nekkatul béykat mais ingénieur ingénieur génie civil merci. merci monsieur le maire Je ñu ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal ak sa ak ñoom ñëpp merci jërëjëf sama monsieur Alla jarama jarama.